messieurs les ministres mesdames messieurs les collaborateurs des ministres Mme ngi Dylan sant honorable député chers collègues monsieur le ministre ñu ngi lay ça fait 33 ans bi may def CE2 liñ ma njëkk a jàngal bi ma commencé di am leçon moy la balance commerciale du Sénégal est déficitaire déficit bobu 2022 bi wala 2020 mu tollu ci ñaari junni milliards ak ñaat téeméer ak fanweer ak ñett comme yow yaay Messi xalé yi nañ yaay Messi kenen ki moy Mbappé Aka le Messi mëna def ba liñ ñu jéem ne serait-ce que équilibré nous devons équilibrer, nous devons mon temps, Monsieur le Président. Nous devons équilibrer la balance commerciale. C'est très important parce que nous devons la production de gaz et de pétrole. Ce que nous devons faire, c'est que nous devons faire des choses. Si nous devons faire des choses, nous devons faire des choses. 2 233 milliards de dollars. Donc, quelle stratégie vous avez, c'est le ministère pour que la balance commerciale du Sénégal soit équilibrée ou ñu sax excédentaire Benen birbi bi Sénégal man dama am un problème et japp naa ni mooy sunu problème ñun ñëpp Moy problème suivi des projets programmes et politiques publiques monsieur le ministre bi fi batalo jola amé ñëpp dañ taxaw ñu plus jamais ça amatul woon surcharge ci bus yi ci calendrier, ci taxi ci train yi amatul won mais trois mois après ñepp faté bi fi Covid amé barki dem mo ndjay Ablaye Diouf sar xaw ñoo rey leen masque yi distance un mètre raxasu leen ñu raxasu ba suñu loxo yi fut tay faté nañu ni Covid amna, na bi kenn takku fi masque té tay au jour où je vous parle amnañ 31 cas yu nga xamante ñi ngi ci biir hôpitaux te bi ñu amee benn cas rek ñu ngi ñuy bëgg rek donc ana suivi bi foofu li la ci intéressé yow mooy bi fi choléra amee gouvernement Sénégal dafa jëloon ay mesures wax ni bu kenn jaayati mburu ci boutique yi wala ci puus-puus yi mais tey la wàllu gën a ay mburu mi ñu ndekkee tey ñu ci bëri ku ko jëndewul ci boutique ci puus-puus nga ko jënde donc lan ngeen di xaar aussi pour revenir à ci mesure bobu parce que jàpp naa ni ci li nga xamanteni moy mooy hygiène waxoon naa la en commission bureau économique yi nga xamanteni mo nek ci représentation Sénégal yi à l'étranger lu am solo la et jàpp naa au lieu que ñu fay nommer ay hommes politiques ne me dis pas que quand tu étais avec le président Wade en 2011 2012 loolu ngeen doon def jàpp war ngeen meuna corriger loolu au lieu que ñu fay nommer ay hommes politiques politique, naa war nañ fa meuna nommer ay commissaires aux enquêtes économique nga xamante ni dañu représenté waale Sénégal bu ñuy négocier ci ay accords économiques ay partenariats économiques ñu xam ñoom fan la ñuy teg seen i tànk beneen bi nga xamante ni foofu bëgg a moi je ne suis pas convaincu que les mesures yi ngeen jël pour que li nga xamante ni loi loyer bi dana antu lu tax du que l'État état bi amul possibilité intervenir ci ki nga savez, de dafa jël xaalisam. wala mu dem ci banque bi lépp xaalisam tabax këram te waxuloo ko ni zone bii nga tabax sa kër ñaata nga koy loué boo ñëwee Liberté 6 nga bàyyi waa ji muy loué ni ko neexe nga ñëw yëmbal bàyyi waa ji muy loué ni ko neexe tey boo ñëwee ni ko di nga wàññi quatre di nga wàññi vingt pour cent wala quarante pour cent ci loyer boobu dafay xaw a doy waar su fekkoonte ni état bi nee na zone sangam boo fa demee deux chambres salon nangam lañ koy loué ba ñu acté ko ba ñëpp xam ko laa bu boobaa. ki nga xamante ni mooy bailleur bi du am possibilité génnee baara pour mën a yokk location bi teg ci li nga xamante ni mooy marge bi ngeen ci wàññi njëkkoon ngeen ko fi def mesure boobu defoon ngeen ko fi mais lan moo xew da ngay ñëw yow mii bailleur bi nga ni ki nga loué génnal sama kër parce que sama njaboot daf ci war a dugg génnal sama kër parce que dama war a defaraat bu génnee Beaucoup tu as 200 000, tu as loué 250 000 pour pouvoir respecter ce que tu sais, c'est ce que l'État dit. Donc, le manque à gagner, ce que tu sais, c'est d'empêcher le bailleur qu'il ait. Ils ont une stratégie pour qu'il ait. C'est ce qu'ils ont Donc, c'est ce je ne suis pas convaincu de la mesure que vous faites pour gagner la location. Je vous de vous remercier. Je vous remercie.